que Macky Sall xam na ne jeexal na xam na ne yëf yi jeex na léegi ñi ko xañ la mu bëggoon def ñoo ñu la bëgg jëflanteel parce que yéen xam ngeen ne miix sedd la nit la kuy ruminer koleeram te li mu jàpp du ko bàyyi madame le premier ministre dafa baax rek mu ngi wax tigre en papier mais Macky gaynde simb la xam nga gaynde simb day solu di gaynde gayndelu ñi muy dàq xam nañ ne du gaynde et donc ci biir jeu boobu moom day considérer boppam gaynde mais moom Macky Sall rek moo xamul ne sénégalais yi pare nañu ci moom y compris ñi nga xam ne ñu ngi séq ak moom wala ñu nekk ak moom ci benn langue parce que madame Aminata Touré wax na ko léegi li xew démb assemblée nationale c'est un signal fort signal boobu nag daf ñu interpeller ñun ñëpp pour que suñu liberté yi mu jóg pour entraver ko parce que am na police parce que am na gendarmerie parce que am na une partie des magistrats yu nga xam ne nangu nañu nekk bras armé ñooñu nag léegi ñun sénégalais yi ñoo war a jug pour wan leen ne suñu doom yi ñu tëj ci kaso yi suñu mbokk yi ñu tëj ci kaso yi suñuy àndandoo yi ñu tëj ci kaso yi te wéeruñu ko fenn il faut mettre un terme à cela ku ne gis na week-end li xew ci investiture bu Pastef bu président Ousmane Sonko ku ne xam na ne Macky Sall noonu lay doxale fàttaliku leen en juin dernier bi ñuy def investiture bu gëm sa bopp ak jidde caaroy kaw administration territoriale li ñu utiliser pour saboter ko bi F24 waree def dialogue du peuple yéen a ngi koy fàttali ci lieu privé dañu fa fekk génn ñu fa ñu dem siège Malick Gakou ñu fekk ñu fa ak détachement gendarmerie génnewaat ñu fa kon loolu mooy man buur su ma nee fii kenn du fi teg ndawal faw ngeen respecté ko kon xam ngeen ne moom Macky Sall buur la jàppe boppam li xew bërki démb siège u PRP bu président Déthié Fall yéen ñëpp gis ngeen ko xëy suba ñu indil leen ay gendarme teg leen ci buntu siège bi barricadé ko ba kenn mënu fa dugg et on a l'impression que seen stratégie maintenant mooy jël suñu force de défense et de sécurité yi di leen fooye gis ngeen kër góor gi fu nekk ñu teg fa ay barrières policiers yi taxaw fa ak gendarme yi mu mel ni sabar bu tas kenn mënul dem kenn mënul dikk uniquement pour indi jafe-jafe ci benn doomu aadama boo xam ne deful dara lu may taxaw jàkkaarloo ak makisal ne ko ànduma ci li ngay def bokkuma ak yow gis-gis kon li wóor mooy ñun ñi ñëpp toog fii suñuy liberté actuellement chaque jour Macky Sall mun naa yónni police am wala gendarmerie ñëw teg loxo ci ñun wala fàtt suñuy kër barricade ko bi ci mujj di El Malick Ndiaye dégg ngeen une histoire absurde audio boo xam ne benn sénégalais bu nekk Italie moo ko def tudd Mor kase ñu jàpp El ne ko yow audio boobu yow yaa ko def jàpp leen ne li dal El mun naa dal kenn ku nekk ci ñun li dal biram Souleye ba mu wax la mu wax dellu am grandeur ak ngor ne moom mu ngi jégglu ci kàddu yi bu ñu amoon njiit boo xam ne day jàppe boppam ni ko yàlla def bi biram Souleye waxee ne jégglu na ci sénégalais yi ci la waroon génn ci kàddu googu mais c'est dommage boo amee di jëflante ak nit koo xam ne xamul lu dul fitna ak rapport de force situation yu mel nii rek lay indi ñi ñu tëj ci prison yi wax nañu ci ñu ngi ci dellu di ci waxaat di interpeller la communauté internationale di interpeller kilifa diine yi pour que Macky Sall ñi mu jàpp ci kaso yi mu bàyyi leen ñu dellu ci seen kër bu ñu koy lim fi lay fii la ñuy des Bassirou Diomaye euh, Falilou Keita euh, professeur Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq euh, Pape Amadou Touré bari na bi ci mujj dégg ngeen démb ay responsable yu opposition au niveau de la commune de Koki également jàpp nañu leen woo leen ci gendarmerie téye leen fa sonal leen loolu it jàpp nañu ne c'est des chose yoo xam ne il faut qu'on y mette un terme et bi ci mujj euh, Aliou Sané mi nga xam ne ñu ngi koy menacer dindi liberté provisoire am parce que tout simplement bëgg nañu faagaagal F24 mais ni ñu koy menacer ci liberté provisoire am ñun ñii ci des ñëpp noonu la ñu nekkee ci liberté provisoire parce que à tout moment Macky sàll mun na dal ci suñu kaw Macky Sall mun na jël suñu liberté et loolu nu interpellons tous les Sénégalais pour que ñu mën a taxaw jàkkaarloo ak moom ba li nga xam ne mag sàll bëgg na ko loolu dootul mën a nekk ñu ngi leen di gërëm